bismillah président Abdoulaye Wade kàddoom yii mu yëkkati kon ca Touba gee neexul waa Tiwaawoon ubbil enquête yéen kay journal bi ne moom président Abdoulaye Wade mi waaw merloo na kon waa Tiwaawoon ba maar dey taali le quotidien yéen kay ne moom président Abdoulaye Wade mi ci gaaf ak giraawaali kon la dëkke ak njabootam gi rawatina kon ay ministre am lu xew yëral leen ma kon Souleymane Ndéné Ndiaye mi doon na jéem a sax kon jugubanti kàddu Abdoulaye Wade yi nga xam ne kon Wade yëkkati na ko ci diwaanu Touba gële premier ministre bi ne Abdoulaye Wade li ko gars yi kon di waxal naan moo ko wax Ablaye waxu ko Ablaye Wade daal la mu xamle mooy nit ñi nga xam ne ñoo doon sànni xob di électeurs yi ñoo ko fal lu ci tolloog juróom-ñetti junni nekk ci bureau de vote yi am na ci ay côté yoo xam ne kon nañuy soppi ay kàddoom yéeni kaay ma jëmba jàngi ne moo ne moom président Abdoulaye Wade mi le waaw moo yëkkati kon ay kàddu ñëpp teg ci kon seen nopp teg ci seen bët Abdoulaye Wade ne Touba la dul tëkkale ak dara Touba laa ni mënuma leen a kon tolloole ak yeneen kër kilifa diine yi waaw Touba li ma leen di defaral du ma ko defaral kenn parce que waa Touba ñoo ma fal 2000 ñoo ma falaat 2007 la ilaha illallah ah la ko tëjee yéen a kaay ne yéen a ngi fàttali ko Abdoulaye Wade keroog ba mu yëkkatee kon kaddu yëcca si ses waaw waaw militant nga mi kon wër ko am lu leen nag muti woon lool ci ay imam yoo xam ne dañ fa yëkkati woon ay kaddu xamle carrément ne xërëmu Abdoulaye Wade bii di monument de la renaissance africaine di statue ba waaw ne kon islam d'accordu ca tey te d'accordu ca ëllëg Abdoulaye Wade kon mer ne mais xoolal leen ma chrétien yi te du ñu ngi ci biir église yi waaw di julli ci Yeesu Krista waaw lan moo tax kon ba nit ña demuñu kon ca biir église ya toj ko loolee nag taxoon kon ba suñu mbokk chrétien yi mer ba maar deytaali moom Abdoulaye Wade moom mais moo ëlbatiku dee dem kon jéggalu ja ginnaaw kon ba mu yónnee kon doom ja ba noppi ñu ne ndax tojaange Abdoulaye Wade ak waa këram fa la yem ñu ne déedéet yéene kaay ma jëmbal jàngi ne Bekaay Diop ba mu fi nekkoo kon ministre de l'intérieur yéen a ngi fàttaliku kon ba mu demee ca diwaanu Touba Bekaay Diop dani woon man daal pour ma wax fi tey dana jafe lool parce que li may waaj a wax nii du neex ñu baree bari aha waaw waaw Bekaay Diop ne waaw du neex ñu baree bari parce que Touba Touba Touba affaire bi fii la yéen a ko yor yéen a ko yor Le Quotidien yéen a kaay ne gars yi ne tëj laa ilaha illallah Bamba Ndiaye ministre ci boppam moo doon jéem a kon rafetalaat kàddu Bekaay Diop ya ne xam ngeen ne Bekaay Diop mii nampul olof te kàllaama boo xam ne kon nampoo ko nag ngir nga wax ca daal wax joo xam ne maanaam sa soxla day daal di kon jafe ñang ñang ñang patiti patata looloo tax kon ba Bekaay Diop dugg na fii génn fii ñu ne ndax gaaf ya fa la yem ñu ne déedéet Moustapha Guirassy ak ticket présidentiel ba taskatu xabaar ya kon la mujj tuumaal ñu ne ndax gaaf ya fa la yem ñu ne déedéet Khoureychi Thiam ak gouverneur wadiste ya ñu ne ndax gaaf ya fa la yem ñu ne déedéet Cheikh Tidiane Sy waaw waaw ak coup d'état ba nag tuumaal gone nekk ci opposition bi ne coup d'état kon la ñuy préparé laa ilaha illallah ñu ne ndax gaaf ya fa la yem ñu ne déedéet Moustapha Guirassy moo ko mujj kon jubbanti moom Cheikh Tidiane Sy moom mais réew ma kon yëngu na le pays au quotidien ne kaso bii di camp pénal ci yëngu la jëm marte itali waaw waaw parce que Abdoulaye Wade dogal bi nga xam ne kon fas yéene na koo jël génnee jigéen ñu kon ci kaso bi ñaar fukki fan ci weeru janvier gii ñu ne góor ña tamit kon ña ngay waajal ab fipp goo xam ne marte itali yéene kaay gi ne la tax nag ñu gën a mer kon ca kaso boo bee bokk na ca waaw waaw nàmp nàmpal ak neexal ga nga xam ne kon moom la ñu dëkkee ci kaw Barthélémy Dias mi ak Malick Noël Seck moom Malick Noël Seck moom mais génn na ca kaso ba ci tribune yéene kaay Malick Noël Seck ne xanaa xamoon leen ne bëgguma woon a génn aha Félix Sall ci tribune yéene kaay ne ko waa mais lu tax na nga génn Malick Noël Seck ne ko mais tayuma ko tayuma ko parce que dama ne woon damay toog kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ca kaso boobu bee ne ma di nga génn ci neex na xari boo bëggee foo tëju waaw demal ba sa kër kon nga tëju fa libération yéene kaay ne ay waay cong gi nga xam ne kon congoon nañu ko mairie bu Sicap Mermoz gée Barthélémy Dias kon jiite waaw am na ci ab police boo xam ne déglu nañu ko te ñuy garde kon Abdoulaye Wade yor kaaraangeem ca la bokk laa ilaha illallah te kenn nag wili pandewu ko ludul ka nga xam ne moo yor parc automobile maanaam yor kon oto yi nekk biir parti démocratique sénégalais biir parti démocratique sénégalais goo gee safara sàngay jax-jaxi le populaire ne démb kay wanee te nañ seen manin ca bureau Karim Wade gëlee waa PDS yi nga xam ne ca Podor la ñu fekk baax waaw dañoo xeex ci kanamu Karim Wade raak ba naaw ba maara di taali caxat-caxatee kon bureau ya comité électoral bu fal ca Podor goo gee la ñu fa doon monté Macky Sall la ñuy monté de Sud Quotidien ne Macky kay mi ngi gën a kattanal coalition bi le Mously Diakhaté ak Abdourahmane Touré sénateur ña nga ca Macky Sall ah waaw waaw Mously Diakhaté ne déedéet damaa ñëwoon rek ngir déglu si ko tribune yéene kaay ne Mously Diakhaté daal digganteem ak Talla Sylla daanaka kon neexatul déedéet fi neex kay diggante Abdoulaye Wade la ak maître Ousmane Ngom réew mi quotidien ne Abdoulaye Wade daal naka mu wàcc ci aéroport bi waaw nuyu kilifa yëpp nuyu Ousmane Ngom ne ko dugal ca oto ba ñu wutali kon palais ba lan la ñuy préparé looloo jar a laaj diggante Abdoulaye Wade ak ministre de l'intérieur am palais ba kon la ñu wutali Youssou Ndour palais ba kon la soxla express Direct News ne xam ngeen l'observatoire de la musique et des arts Omar waaw ñoom daal génnee nañu kon ab bataaxal di ab communiqué sàkku nañu ci Youssou Ndour mii mu dellu ginnaaw ci candidature am gi lee waaw waaw njiit la ci boppam di Abdoulaye Mamadou Guissé nee na li nga xam ne politique kon mën na koo jur ci ay giraawaaleeg ay musiba ak man yàqal doomu aadama ci boppam la ñu xam moo tax ñu soxla kon Youssou Ndour mi le daal di kon génnaat ci wàllum politique bi Omar Faye ci tribune yéene kaay ne xanaa xamoo leen ne am na ci ay candidature yoo xam ne dañu koo war a rocci waru ñoo nekk candidat déedéet parce que yow am na ci ay candidat yoo xam ne wàllu mbalax mu may kese la ñu fi nar a def te bu Youssou Ndour bii bokk na ci njiital leeral askan wi ne xanaa xamoo leen ne Youssou Ndour day jaawale lu jaar yoon ak siiw maanaam ay code de popularité dangaa am drogue dugg na fi génn fii xam nga li ma la wax Omar Faye ne dëgg la Youssou Ndour mën naa nekk président du mbalax dëgg la waaye président wu Sénégal mënu ko waaye na gis nga lii lépp Abdoulaye Wade la rek mi nga xam ne kon caxat-caxatee ne réew mi yàqate réew mi dugal fi ab désordre pëccaxoo goo xam ne maar di taali moo tax it ginaar gu tooy wala ginaar gu tawte gu jug ne damay doon candidat Youssou Ndour candidat yow ko jàngul xamoo dara ba dara booloo jeex nga naan da ngaa bëgg sénégalais fal la saaga la sax booy xool ba ci biir laas ne Souleymane Ndéné Ndiaye day lañ fi bindoon démb ne këram ga ca Touba dañu koo song waaw nee na c'est pas vrai du dëgg premier ministre bi ne taalibe murit bu mel ni man nan laa mën a yëkkatee ay kaddu yu ñagas wala yu tegginewul ci kaw kii di sëriñ Abdou Lahad Mbacké bala ay sa Souleymane Ndéné Ndiaye ne xam ngeen ne loolu yërewul sax maanaa waaw waaw sama kër gañ naan dañ ko song ca Touba gee ba ma laajee commissaire ba nee na ma loolee amul te takk der yi bañ demee ci sama kër goo gee fekkuñ fa kenn ku dul journaliste Youssou Ndour ya kese laa fekk kon ñu taxaw ca bërëb ba Souleymane Ndéné Ndiaye ci laas ne fa ma nekkoon nag juguma fa candidature Youssou Ndour gii ay mbirum caaxaan la waaw man Ndéné maa ko wax waaw waaw parce que mais mais mais mais mais mais attends te Youssou Ndour way na ko ah Youssou Ndour moo way nit ku dul juum amul mag dina juum ndaw dina juum kilifa dina juum sul jaam dina juum xaw ma nan Souleymane Ndéné Ndiaye ne Youssou Ndour a ko way kon tey dafa juum Express News ne ay waay Cheikh Amar waaw waaw nee na Youssou Ndour dëgg la sama xarit la waaye man Abdoulaye Wade laa àndal bis ni ki tey nay leer te moom laay votel te danaa raak battre campagne ngir Abdoulaye Wade mi le kon faluwaat Express News ne Cheikh Amar mi le jënd na ay junni junni ci ay oto ngir chef de village yi laas ne ay waay yorinuk sirn ay yorinuk sirn société bi le lépp kon xonq na yorin ngoo xam ne maar day taali direction bay weddi nañu waaye am na lu ñu nangu de dem naa ca làmb ja lawtoo yéene kaay ne Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène waaw xeex amoon na seen diggante de oto Lac de Guiers 2 waaw dañu koo caxat-caxatee ba maar deytaali waa tay si nga ñoo def lu ni mel Eumeu Sène boo sàgganee danañ ko plainte waat suñu lamb ne ay waay Luc Nicolaï revanche ba revanche ba laa ilaha illallah Luc Nicolaï taxawal na diggante Modou Lo ak Balla Gaye 2 laa ilaha illallah wuu ah maa la wax li ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru sulet la di juillet laa ilaha illallah waa kër Modou Lo weeru mai la ñu bëgg kon combat ba waa Guédiawaye dëggal nañu ne waxtaan ba am na Luc Nicolaï na carte gi yëpp danaa ko leeral tey Abdoulaye Wade day leeral na digganteem ak ki ne laam libération yéene kay ne ay waay waay tabe ku mënul bawul lu yàqu mooma maa la wax li Abdoulaye Wade juróom ñaar ci ay millions la may ki ne laam mam bamba laa ilaha illallah tegal ko ca benn 4-4 mu yéen maa la wax li laa ilaha illallah ay waay fara waat di njàkk daara waat di njàkk lii bale laa bëgg a dugg am ci wit wit yi laa la wax ak ci millions yi moo gën ma topp wax gi le man mii nga xam ne sama oto yu ndaay bii ñu ma jox barki démboo njaay ñi ngi commencé di ma catu sama dëkkandoo yi rajo bii ci wet gi naan ma Ahmed day dégg nañ nangu nañ oto ba Ahmed day dégg naa jóge na zik Ahmed day dégg naa waa zik dàq nañu ko nañu ma dimbali ba ma ngir yàlla say ba tas na nañ ma ba cam ëslate dëgër bopp rek buñ bëggaatee dégg bismillah dama ni nañ làmbi feneen ak jom man ñii yàlla buñ ma catu sax cam maa ngi bàyyi sax ba déggati kenn ne ma ki ba ma uy